ça maa ngi leen di fay. borom maletu or yi. ah gis nga de loolu la ñu wax. <laughs> dégg nañ ne Sénégal ba mu des ci ñu képp ku fi takk or rek yaa ko ko jox. waaw rawatina or bu rafet. or bu spécial or bu précieux waaw. tey ngay sponsorisé série bu mag bii di valeur lu wala li ni mel. waaw vraiment valeur déjà Rafet moom suñu partenaire yu yàgg lañ. Hmm. depuis ñu ngi liggéey ñoom ñu ngi gis ñu bopp franchement ay nit ñu jàmbaar lañ ci seen liggéey moo tax ñu sawar di liggéey ak ñoom te mosuñu ko réccu benn yoon franchement hmm. waaw ñu ngi leen di leen ñaanal ba ñu weesu fii yëpp dem international bi. Mm. d'accord ci sponsoring bi gis nañ ne or yu rafet la ñuy daal di takk ñu bëggoon xam or yooyu dañ leen koy abal wala dañ koy jënd. non partenariat lay doon. d'accord partenariat déjà bi ñu si signé ak ñoom la. Mm-hmm. te leen koy jox ñu tax ko série parce que et puis ñuy defal jar nañ mm-hmm. vraiment moo tax ñu ngi ci gis suñu bopp bu baax. d'accord buñ ko takkee après delloosiwaat ko client yi gis ko ñëw jënd. waaw bien sûr bien sûr. Ah, visibilité bi yokku na bu baax depuis mm-hmm. lors franchement waaw. d'accord regretté woo ko benn yoon célébrité yi ñëw ci yow di abbu or pour dem ci événement yi ñëw delloowaat la ko nag. ah loolu moom franchement amul si ñun. amul ci yéen non non. amul benn célébrité bu ñëw di fa abbu or. non ñun or ah, kenn du ko abbu or valeur la di. ab li ko daal wër bu réeree kuy fay. ah d'accord ah a na nekk lépp ci sponsoring la bo. Euh, ñun moom. doo leen ko def actuellement nii duñ def fit boobu daa waaw ah, ñëwee ma ko jox dëgg yàlla. <laughs> d' accord ñu lay jaajëfal bu baax waay. en tout cas merci beaucoup di leen <laughs> jaajëfal bu baax yéen tamit. d' accord merci euh, yàlla leen yàlla sàmm yàlla taxaw leen. merci jërë jafa jëf ah. merci beaucoup.